soo daan ñuy waxtaan ci suñu maam ah waxtaan ci maam Thierno nag di lu neex la parce que kan mooy maam Thierno Sarr Thiome mooy ki jëkk siiwal Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam كان موي مام تيرنا سارتيوم موي كي فينال سينا لي مام عليه الصلاه والسلام كان موي مام فين تيرنا سارتيوم موي كي دون ليب سينا لي مام عليه الصلاه والسلام تا لول لا يالا دغول باسكو يالا مو دغول مام باي لاي دي خار خار خار خار خولاي كون يالا كو تانال مام تيرنا سارتيوم موي ليب كون وقتان تي كوكو avant le pendant et après avant bi nak commencé na ka daw ba egg si fi yàlla dogale ci dogalam maam bàyyi laay woote ajiboo daa yàlla commencé woon naa fa ba egg si ñu tëj ko ñetti fan ya mu tëju woon moom maam Thierno Sarr Thiom ba ay waajuram libéré ko mu ñëw indi yére bi mu ko sololoon parce que nag maam Thierno Sarr Thiom moo jëkkal say solol say naa limaamu mbuba loolu la yàlla dogal parce que maam bàyyi lay ba muy woote ji dafa taraxlaayu sangu kaalawu baal ma de kon ñetti fan yëpp tëjuwaat parce loolu il faut ñu boole ko ci taarixul laayeen maam Baye Laye avant muy woote dafa tëju ñetti fan mooy bi suñu maam ku ma doy génnee àdduna yàlla na yàlla yeesal ay la mu wootee ci dimanche ja dellu si waat tëjuwaat ñetti fan li waral toujours bind bindkat yi ak laayeen ni naan maam Momar bind Samb moo jëkk gëm Seydina Limaamu alayhi salaam ci loolu la ñu sukkandiku parce que bamou mu waté siwaate tëju ñetti fan mam bamar bint sàmb moko don moko don garder moko don wattu ken dugul ken gennul muy xaar kan muy xaar sopem ba muy xaar andandom ba muy xaar conseillam ba muy xaar magam ba ci zahir muy mam cheno Sartion parce que moko koko ko wara andil mbuba bi mu wara a leral ne ke fi karok mam bay lay wote na dawal ñetti at yàlla dogal na ci dogalam la ko daloon démb Jibril ñëw na wax na ko ni sa borom nee na nga waaj parce que tey doo fi naan biir yoof gàddaay war na ci yow gàddaay ba jug na waxoon nañ ko tamit egsi nañ ci ba leeral ñeente ñu mu jëkkoon àndal ba muy génn ba ñu ñëwee ba jàmmalaay jullikaay ba leeral nañ ko fa bañ fa déparé dem nañu topp nañ cox-coxaan bi comme ni ko imaam waxee ba ñëw fii ci yi di Cap Médine tey foofu lañuy ñuy taxaw parce que Ningala il faut ñu leeral foofu Ningala ca gàddaay ba ca la ñu demee Malika ba ñu demee Malika dafa xew xew na fa def nañ fa ñetti fan bala yàlla dogal lu muy dogal fa la fa la Seydina Limaamu alayhi salaam nañu bàyyi di wax tubaab bi daka jàpp déedéet maam bàyyi lay alayhi salaam moo jébbal boppam tubaab bi ndax mbokkam yamu àndaloon sonn nañu def nañu ñetti fan ci zone boobu di ko patrouiller di wër di ko seet mu ngi leen di gis te ñoom gisuñu ko ba yàlla dogalee talaata boobu mbaam maam seeni bu jéen mu mag andi maam njoon moo bàyyam waajal ko ñaanal mu takkaat ko mu dellu ba mu toogee diir daje di jot ca la ni maam tafsir Ablaye nañu bàyyi di wax Thierno Sarr la di ko wool noon yële déedéet maam tafsir Ablaye jàlloo la maam Mbaye lay alayhi salaam ni ka tafsir de jaamu yàlla yële. sonn nañu seen gawaar yaa ngi ñàkk tooy xiib ñoom ñu ngi ñàkk tooy xiib te man mii la ñuy seet waaye nee leen maa ngi nii kon kay kooku moo jébbal boppam parce que ki toog ay jour di seet seet penc yëpp yu si doon yëpp fu nekk patrouille nañ fa fu nekk seet nañ fa kooku la yàlla yónni kooku moo diisoo boromam bu ko neexoon kenn du ko gis mais moom moo jébbal boppam nasaraan bi nañuy wax loolu buñ dañuy bàyyi wax naan tubaab bi dafa jàpp Seydina Limaamu Seydina Limaamu nëbbu yàlla jaam da tuutiwul ci gis loolu la yàlla dogal mu jébbal boppam ci la loolu la dogale dogalam ñu jàpp ko moom maam Tafsir Ablaye Diallo defe naa ne loolu leeral nañ ko waxtaan nañ ci miraaran miraaran miraaran jarul ñu siy dellu jàpp dem na di yem nañu gore jenc nañ ko fa ñetti weer génn na dem na kër moom Tafsir Mbaye Sylla jóge na fa foofu nag mooy problème bi parce que foofa la lii xew xebe pour Camp Médine gi taxaw bañ fa defee neuf mois jëm dix ca la yàlla dogal li muy dogal maam Baye Lay alayhi salaam di julli gee fekk maam yore ndee la ñoom maam Mor Bintu Samb sama maam Thierno Sarr Thiom ñëw nañu dem dakaar defe naa ne keroog loolu yàlla dogal lu muy dogal nga xam ni ñooñu defe naa ne boobu portable amul téléphone amul mais liñ doon communiqué dañ daan communiqué ci zahir dañ daan communiqué ci baatin mm-hmm. ba yàlla dogalee ñu ñëw foofu nekkate keroog ci la li xew war a xew pour Camp Médine gi taxaw ba ñu ñëwee ah def na fa neuf mois et ñu ñëw doon seet si sallallahu alayhi wa sallam Seydina Limaamu alayhi salaam ba ñu ñëwee ñu toog ñu julli ba julli fa géeye fa luñ jullee géeye ci la yàlla dogal lu muy dogal yàlla yàlla yogal jibril alayhi salaam fa maam bàyyi laay doon jullee fa la ko jibril fekk ni ko sa borom nee na hmm. tey bul fanaan dakaar te doo fi naan guddi googu la jub guddi googu la ni maam yore ndee la parce que maam yore ndee la nag saabaloon ba nga xam ni xam naa ni ay jamono ngi ñëw dinañ egsi ci ñoom ñëpp incha allah parce que ñu ngi ci gëstu bi te ñu ngi ci recherche bi ni ñu gëstoo ci suñu maam loolu la ñuy gëstoo ci incha allah magu diine ji yëpp te amaanaa dinaa ci egsi kanam tuuti mu ne ko yorondee la day ah ndigal da jóge na ci kaw jibril alayhi salaam léegi la fi jógee ma borom nee na du ma fi daan tey Dakar c'était rue de Dené defe naa fa la nekkoon grand <laughs> rue de la maam na Mbaye si la dëkkoon parce que notable da patron kilifa Dakar yi tubaab bi nasaraan yi foofu lañ dëkkoon te defe naa ne ba léegi ku ñëw Kandjol Diop ca kaw di nga fa gis foofu ay borom barke rek ñoo fa dëkk fa la dëkkoon foofa la Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam nekkoon neuf mois jëm dix ba yàlla dogalee mu julli gee ba pare jibril wàcc di ko sa borom ndox fi daan ba mu retourné jàkkaarloo mag ña na mu defoon ci yoof noonu la defar dafa ne leen man dey tey duma ma fi naan Dakar te du ma yoof mais Ceerno mii laay àndal nga xam ni kon ñooñu ñoo ñaar ñooñu seen complicité mbiru yàlla la il faut nit ñi nangu ni lii mbiru yàlla la yàlla rek la du kenn yàlla moo tànn Seydina Limaamu def ko muy xayri xool ku lay moo ko tànn muy missionnaire am moo ko tànnal maam Thierno Sarr Thiam muy son premier compagnon. defe naa ne mi ngi leer bind nañu ko fi ci kaw l'un des premiers compagnons de Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam ñu koy sant yàlla nag. ba ñu jugee mu ne ko Thierno day tey day ah ma war a day wax la ma daloon yoof dalati nañu dañu du ñu fi naan tey fii fu ñu jëm yàlla xam. jibril bi ñëw di ko wax sa borom ne na nga jóg moo leen di orienté ñu jël seeni satala jël seeni i wàccuwaay seen i jullikaay yooyu guddi la ñu topp maam bàyyi lay jox na ñoom maam yoro la ni leen dem leen yof ca la ñu jëlee suñu maam ju baax ja maam soxna tut si la parce que maam soxna tut si la maam aminta si la la ñu koy woowee maam tut si la ci lañ ko jëlee yóbbaale ko yoof maam Baye Lay alayhi salaam ak maam Thierno Sarr Thiom topp guddi gi riyaan ñëw tey fii kan Médina bi ñu fi ñëwee def nañ fi ñetti fan finaan nañ fi ñetti fan maam Baye Lay naa ni woote bi ba mu amee ba ni mu bakk suñu borom bi yéegalee ba jox ka lim koy jox ba wan ka lim koy wan maam Baye lay keroog ba mu ñemee ñamu àjjana hmm. keroog la suur ñamu àdduna looloo waral kooram gu metti ga ba ba muy tollu ci guddi dernier julleem fii keroog la ni la ni la ni suñu maam Mamour Jaxate hmm. Mamour bu ñu ko mu ni ko dugalal sa loxo si diggante sama mbuba ak si ma ngeen baal ma rek dama ci def benn lu may leeral foofu hmm. mu dugal ci loxo mu ni ko Mamour loo daj Mamour làmb làmb dajul biir dajul lu dul colonne vertébrale mu ne ko ah ma day daju ma fi lu lu daju biir de yax rek laa daj ne bunda kay laay mu ne ko gis ngeen ma xiif bii hmm. jënd naa ko seen rek ëllëg yow man xiyal yàlla yàlla nañu yàlla fayal maam bàyyi lay yàlla nañu yàlla fayal maam bàyyi lay alayhi salaatu wa salaam waaye ku ne amin yàlla na nga fekk déwén amin yàlla dogal ñu ñëw Cambérène bi ñu ñëwee def nañ fa ñetti fan bu jour bi sama grand bi wax na ci ba tàyyi yéeg nañu ca kaw la fa xew xew na fa ca deuxième jour ba bi ñu waree jàpp pour julli dajeeg tisbaar jot ndox amul bam ba Thierno Sarr wàcc ne ko sang bi baal ma dem waajali ñu waajal waxtu wi ñëw lal laluwaay bi teg xool setal gi ndox mi manqué mu waaxuwaat ca yar ba waaxuwaat ca teggin nga waaxuwaat ca dal ga ñëw fekk sallallahu alayhi wa sallam su mu déer mu ne ko ndox bi di dafa xaw dafa manqué lu ñu war a jàppee mu ne ah ne ko mu ñu àndaat wàcc montagne mi parce que montagne boobu fa la baal ma de fa la lépp nekk montagne bu fa la lépp nekkoon ngeen ca wax wax na ko fii daaw jaruñu ñu si àgg ba ñu wàccee ñu wàcc parce que ningal la ku xam taarixu ningal yi xam ni mel woon nii ningal dafa xur la dafa xóotoon booy wàcc problème ngay am booy yéeg problème ngay am dafa naa ni mag ñi may wax je parle sur le témoin de mag ñi fi de muy lu leer ba ñu wàccee booba première seede bi jëkkoon gëm ci Seydina Limaamu guy gaa fa jëkk teen ba ñëwagul teen bi fii la ñëwee muy 88 bi may wax nii parce que ba ñuy dem 87 la woon dama bëgg mu leer ci bopp nit ñi 87 ba ñuy dem booba Cambérène taxawagul def nañ fa escale nag julli nañ fa ñaari rak bambaay lay wax na fa wax ju tedd ja c'était en 87 mooy gàddaay gi ba mu jullee ñaari rak ba mu toogee naan ni ceerno mu ne ko laay mu ne ko ceerno mu ne ko laay ba mu ñetti yoon mu ne ko xaltu naa ni ëllëg sama waa kër fii la ñuy jullee àdduna gépp wër leen te doo dégg fuñ ko laayee ni waxee doo dégg fu laayee ni waxee ningal yi te nag lépp maam Baay Laay alayhi salaam barke limaamul Mahdi mi ngi ci ningal yi ku ko xam mi ngi ci ndigal yi ku ko xamul mi ngi ci ningal yi ba yàlla dogalee mu wàcc ñu xool gis satale gi li ci nekk mënu leen jàppal ñoom ñaar maam Baye lay salaam daal ni maam Thierno kon nag ma ma borom ndox liy andi sababu teen bi boot ñaari loxo yi maam Thierno Sarr copp topp ci ginnaawam mu dëkk man yoonu yoonu Saalum bi mu tëdd bët bët Saalum bi dox dox dox dox ba egg si tey jii fii teen bi nekk bu taxaw taxaw jàkkaarloog penku bi léegi mam ceeru sa rangi ci ginaaw tey ñoo ñi ñaar yalla na leen yalla fayal sababu bënnu tendi mam ba lay alayhi salam taxaw jàkkaarloog penk bi fatihatul kitab la jekk tari muy bismillahir rahmanir rahim ba mu jeex djublu ba ni koy wax nor bi ba ganar tari fatihatul kitab djublu sawmi tari faatital kitaab tar jublu nag bët saalum xool ci kaw diisoo naag boromam siggi xool ci suuf këdd tànkam bu sell ba loxo ndijoor ndox mi sànni allahu akbar laa ilaha illallah ndox mi sànni Seydina Limaamu alayhi salaam maam Baay Laay alayhi salaam moo sukk ak ñaari oomam yu tedd jël ñaari loxoom yu sell yi mooy wàqi di ga di def di ko def comme ngaabu ñi xam ngaabu walla boog yéen jigéen ñi yéen ñi yor lay laytan nuñ koy waxee yi ñuy tànn ceeb laytan wala nga ni bool récipient mm-hmm. bu tibbee maam Thierno Sarr Thiom tàllal mbubam mu sell ba mm-hmm. mu def ci suuf si mu dem yóbbu ko ci digg ba tuur ko fa dellu siwaat mm-hmm. ak Jibril alayhi salaam sëy naa li maamu la مام تيرنو سار چوم اك جبريل عليه السلام امو تول لنين بامو دفه بندق مد ما شاء الله سل رفت ويقتل مسوك موم يرنت يالله بي سيدنا اليوم عليه السلام بيتام من لين لپ لپ لايني لپ سيدنا اليوم عليه السلام ميغي في تي نينغالي باب لاي فال خامنا تي دارا كو فات باب لاي فال يالنا فوك يالنا فوك غنا ياغ لي ماي واخ جي بارل سور سون كونترول باب لاي فال ماغنيكا واجال ماغنيكا بريباري yàlla na fa yàgg nag te yàgg yore ni nga loon ba mu sukkee tànqa ci loxoom bu sell bi moom sallallahu alayhi wa ñaan delloo ko ci teen bi naan ñetti yoon ni maam Thierno Sarr Thion Thierno moom ni ko am ni ko jëlal sa wàll maam Thierno Sarr Thion sukk ca dal ga ca yar ga tànq ci ndox mi ñaan delloo ci tànq naan ñetti yoon ñoom ñëpp ñu bokk sant seen borom subhanahu wa taala moo tax teen boobu ah, lépp lépp lépp luy faj aajo lépp luy faj jàngoro Bablay Fall moo yore ñaan gi ñun gaa bàyyi yal na nu ñaan gi ñu ci sant yàlla mais nag dafa am kuñ ko teg ci ku ñu jox ndigal pour mu koy def muy Bablay Fall lu waral boo ñëwee ni dama bëgg a sàggu si mu la demal nga tànq pot andil ma waaw mais am na lu tax jàngoro bu ma bëgg bu faju ci àdduna hmm. saafara baa ngi foofu boo wax waxtaanee baab lay faal nga wax ka li la dal wala nga wax ka li nga bëgg nga wéet ak moom wax ko ko mu defal la la maam bay lay defal defoon ca teen ba mu ñaanal la ko wala mu la fa maam Thierno Sarr defoon loolu dafa bokk ci lu ñu war a leeral c'était en 1888 1888 kan moo jëkk juddu kam Médine muy suñu papa libaas coom bàyyi libaas coom moo fa jëkk a juddu ah damay wax na ci contrôle suñu mag nday coom suñu bàyyi seexu defe naa ni seexu bi nday coom man nga ci leeralal nit ñi parce que maam bàyyi lay moo ko jëkk a turam yoof moo fa jëkk a nekk turandoo Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam jamono yooyu tudd libaas jafe woon na mm-hmm. tudda limaamu jafe woon na biir tuddee ko ba pare dellu di ko woowee seex bi na li tax tey tur rek la ci Kam Médine sama papa moo fi jëkk a en 1888 maam Baye lay tuddee ko ba pare tuddeewaat ko boppam waa mii ko loolu mën na weesu kóllëre te suñu wajur bu baax bii di bàyyi Ablaye Goote bi di coom mooy caatu maam Thierno Sarr coom moo nekk ak baayam ba ni mu koy jébbale boromam en 1917 ay magam ñi ngi fi woon mais dañu nekkoon en activité dañ daan dem di ñëw di liggéey seen liggéey mais kon kenn gënul woon jege maam Thierno Sarr Thiom Baye Abdallahi Goote Biti Thiom kon kooku bu ñu waxee wa am nañu fit am nañu droit yi suñuy wax teg ci suñu baaraam ba xam kan moo koy dindi